bokuma ci complot bokuma ci dara complot feñaluma dara feñaluma donc amna ño xamantene dossier Adji sar mo len feñal point. alors am loolu moo am limay wax lolu mo am dossier Adji sar mo feñal ay chroniqueurs yu bari mais li limay wax ni kay doo ko teggi. mais euh, échange d'idées là, exactement. dama ne si tu euh, si euh, si soo mes confiance et idées pourquoi pas mën ko échanger man bu la neexee nga andi Macky Sall mu tok fi xanaa déggoo ma alors ñu daal di ñëw itam si leneen. au delà de lui ça anil Macky Sall mu ñëw tok fi jaakarlo ak man. non incha semaine prochaine incha di ngeen am plateau Abdou Nguer ak ki nga xam que moo di Arfan dès la semaine prochaine hein si li nga xam que moo di euh, mid info alors. Arfan ñu daal di ñëw itam si leneen ñu né euh, tay ji Canal euh, enchaîner mu daal di def ben publication euh, du côté de la régie elle Arfan après. Euh, Addis euh, euh, Kamara, Camara je pense. Adis Kamara exactement Camara exactement. ñoom yaay jàmm et consort ñu ne Macky suñu moytuwul Nous ko daal di comme nous ñu ces anciens chefs de l'État concrètement ba jàng si def ouais mais comme tous les jours je l'ai toujours dit Macky Sall il mérite d'être traduit dans les hautes juridictions de de de de l'ONU. war na jaar pays moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu à travers mes arguments. Je l'ai toujours soutenu. Ni que Macky devait être traduit. Il doit être traduit en justice. Moi, Parce que pour la mémoire, ne serait-ce que pour la mémoire des disparus, il a, il a tué beaucoup de gens ici. nous que nous da nga mës gis Ousmane Sonko yor lacrymogène di ko sànni ay nit ci affaire Adji Sarr bi. Hmm. mës nga gis Ousmane Sonko yor fetal di ko fetal nit. dama ne celui qui avait des les armes non conventionnelles Macky Sall la moo les armes non conventionnelles di ko dóor sénégalais yi ñuy faatu comme des mouches un peuple souverain qui t'a élu en 2012 nga fallo devant la coalition euh, présidentielle Bo Ablaye devant Benno Sigil Sénégal sénégalais falla en 2012 nga fallait. nous avons renouvelé sa mandat en 2019 Ils ont massacré les comme des mouches hmm. comme des lâches Macky il il les jeunes sénégalais comme des lâches comme des mouches Si vous non il doit sortir comme ça indemne comme ça, ni. indem. Il faut arrêter. accepter la Cour pénale internationale. Demandez. accepter même la Cour pénale internationale. Juste, juste Sénégal. Warna créé Juntuka une justice bu pour que ne serait-ce que nous extrader des Sall. Autre cour de justice. le laïwa ok Demandez. la cour pénale internationale Sénégal Nous nous suñu justice war na créer ay jumtukaay yu xarañ yoo xamante Macky Sall sax war nañu ko extrader. Hmm. ñu andi ko Sénégal fii. alors Alpha ñu ñëw léegi ci détail exactement. même après avoir quitté le Sénégal euh, pour dem installé force daanu ko Maroc l'ancien président Macky Sall jamono ji nag mi ngi ba sous les menaces euh, sous la menace justement de poursuites judiciaires malgré Amnesty bi nga xam ni na fi et que plusieurs parmi ñoom daa bénéficié wu gouvernement ak ñu mu euh, notamment ces accusations yi nga xam ni ñu ko doon tek contre crime contre l'humanité man ni kon ji nak Macky Sall ak ñeneen ño xamni ni peut-être nekkoon nañ si posture mbokkoon si euh, Moussa Dadis Kamara et Jami Hissène Abré, euh, tous accusés de violation de droits de l'homme. Si maintenant Macky Sall Taftalou, du euh, le quotidien mini informé que ni à fond, dont soupçonné exactement et détournement de fonds et d'enrichissement illicite. si qui n'a ramené comme dit Macky selon une source proche du nouveau régime cité par un journal Sénénews, l'ancien président aurait accumulé d'une fortune considérable, évaluée à peu près de 1000 milliards. Alors, nous Macky instant bi 1000 milliards liñ ko daal di évaluer li mu am si walu koppar suñu xol si bien immobilier et tant d'autres et tant d'autres waaye nekkul loolu kase bokk na si si li nga xamné que moo 80 euh, personnes yi nga xamni ni de liñ ko jim que ni mo len daal di faté euh, si ay manifestations ci euh, mandat bi nga xamni tam itam na fi donc crime contre humanité euh, waaye itam ak aussi li nga financiers nekk crime financier dans lepp nañu de koy dal di texte ko ki nga Macky Sall déjà plainte déposé ko pays du Cour pénale par Juan Branco les troubles violents qui ont secoué le pays ces dernières années ah, ont poussé des organisations des droits de l'homme à réclamer justice euh, pour ces victimes exactement mais attends est-ce que le xewon Tchad le euh, xew Mali laa itam le xew à si waanu Gàmbi si kaw Yaya est-ce que ñun suñu culture parallèle pour dal di top exactement suñu ancien président. paré nakay kay bu parewul du ñu jugé Sénégal do Macky Sall mo juger Hissène Habré non loolu càdd la. dama né fi lañ ko mais le euh, loolaa la wax ku juger ku juger ku juger président yo mën nañ la juger fi culture lu de la dama né Hissène Habré lañ ko juger Sénégal mën nañu juger Macky Sall fi mais mille milliards afan ñu évacué ñu. estimé ko ci ñëw ma ñëw xam xam Macky Sall même buñ ko naré bal dama né même la wax dé te kenn du ko dama même bu ñu ko naree baal c'est l'armée nationale qui doit refuser Mon moo njëkk a bañ armée nationale comment des gendarmes des militaires peuvent disparaître dans ce pays ba les kenn retrouvé wul seen corps armée moo njëkk a bañ dama les généraux de l'armée ñoom ñoo war a njëkk a bañ même bu ñu naree baal Macky Sall parce que des militaires ne peuvent pas être ne peuvent pas disparaître comme ça dans ce pays des gendarmes disparaissent ni. dix jours au lendemain dix jours au lendemain ni. Hmm. ci leer Macky Sall ba pare ñu ne non déedéet amu problème nañ ko baal wala boo waxee ne boo tuddee dossier boobu ñu ne non fayantoo lay doon man gëwma loolu dama ne Lolo. ma loolu man li ma gëm mooy Macky doit être traduit en justice man loolu laa gëm keneen ku ko def le président Diomaye comme Macky Sall ma encore il doit être ça et ça et ça. mais, il s'agit aujourd'hui de Macky Sall. Mais crime contre l'humanité Macky Sall a fait a fait tout dans ce pays. ok c'est pas crime contre l'humanité seulement. Hmm. il a fait tout dans ce pays. mais enfin banditisme foncier crime financier détournement gis nga ay ministres yi ñuy cité nii kan mooy un mentor. daa jàpp ne Macky un mentor comment tu peux gérer ce pays-là pendant 12 ans On te dit que yo, tu as 1000 milliards. dama leen ngeen laaj président ñaata xaalis lay am pas lay fayeeku excepté les fonds politiques yi ñuy wax dans un pays Moi, je ma ne la ñoom Cheikh Yérim Seck il parle pas de ceux qui ont appauvri ce pays ñoom waxuñu ko de duñu ko wax de mm. parce que ñoom mos nañu dañoo mos nous sommes Cheikh ñu mais mais euh, parce que nous les personnes qui ont appauvri ce pays là nous sommes qui ont te ce pays citer Nous tour parce que qui ont mosal ce c'est tout à fait c'est ça la logique. journaliste bu ñemee journaliste bu ñemee askan wi le peuple sénégalais taxaw ne diw ak diw ak buñ fi économie bi on na poche parce que yo dañ la mosal dafa mos mos mais nous du personnes là qui ont appauvri ce pays là ñoom ñoo appauvri des détournements de 36 milliards 29 milliards 94 milliards 1000 milliards 6000 milliards 3000 milliards on parle aujourd'hui de Macky de 1000 milliards Macky si c'est bien Macky Sall ba dafa déclaré qu'il il a 8 milliards tu vois 8 milliards. 12 ans après 1000 milliards. 12 ans après 1000 milliards. C'est ce que bu fekkee yo bala ngay da nga tu as 8 milliards Si tu bo pendant 12 12 pendant 12 12 ans buñu tu que bien buñ ko 1000 milliards nga du sénégalais. bettu ñu kenn parce que le gars il est comme ça Momo moo les détourneurs de dernier public. parce que sàcc moy xam sàcc manipulateur moy xam manipulateur Cheikh Yérim Seck bu né homo pastefien bi ay manipulateur la parce que manipulateur moy xam moroom manipulateur mom il est manipulateur aussi c'est un manipulateur lolu mo am c'est ça les faits seigne bi c'est ça les faits donc Macky Sall, il a fait pire dans ce pays. Il doit être extradé et jugé dans ce pays comme Hissène Abré. Nous pas juger je ne suis pas d'accord. Il doit être jugé au Sénégal comme il a jugé Hissène Abré ici. Nous ne le pas du côté sa morom kaso mais sénégalais bu ñu demee ba jaaxle ba ñu gis ay ñu boom ay ay xale yu il faut dire les choses telles, telles, telles, telles qu'elles sont alors c'est clair man loolu laa clair mi ngi par rapport ak euh, kaw ki nga xam que Macky Sall donc nak jamono ji euh, ñu né euh, suñu xol ay bien toll na ci 1000 milliards exactement à compter ces biens immobiliers et consorts moom nag dorénavant mi ngi ci foofu si daanu Maroc en tout cas comme ñoom Aziz Camara et tant d'autres et tant d' ñi dal di sàkk aussi pour daal di koy topp si kanamu yoon ak walu koy yoonal ma kon les droits de l'homme nak ñoo dal lancé bobu répétition fekk aussi Juan Branco li nga xam itam déposé na ko foofu si pays du Cour international final dal di top ki nga xamne ne que mu di Macky dafa nag Macky mi ngi bëgg am raison ci kaw CPI ak ñom euh Sidiki Kaba que ni CPI eh, eh, euh, euh, mënul leen dara parce que ñom ñoo ko installé woon concrètement donc nak batay euh, du der lo xamni tam itam gis nañ ko si allant dans sens comme wàllu avancer ci kaw Juan Branco ak CPI bi Arfan. dama ne CPI mënul leen dara. Hmm. ñaar ñom ñoko samp nañ ko xol ci suñu kanam. ñaar ñom ñoko fi samp. dama ne mom momi di wax. Sénégal waxuma ban représentant la am ces pays xam nga il s'agit pas d'installer dinaa ñun ñoko installer ñom Sidiki Kaba ñun ñoo installer ces pays Légui Sénégal Sénégal. ban si si si les tous les pays africains am nañ fa représentant. dama né ñi si bokk. non nous en fait ces pays ñu am doit. nous on joue pas les rôles importants. au niveau de la CPI. man limay limay li ma li ma xam. Bah, laa rôle important mais. Sénégal pour que ces pays Côte d'Ivoire ça moñu tané. OK. Côte d'Ivoire moñu tané. tane ñom ñi di wax noonu ñoo nu CPI ñu ñoko installer ñom ñoom Sidiki Kaba le Sénégal ne joue pas un rôle important au niveau de la CI. c'est la représentation de la CPI. ñun on joue les second rôle. lolu mo am. donc CPI bu naré top Macky Sall kenn ñu ci dara. que ça soit nga installer ko du ñom ñoo créer pôle judiciaire financière bi ñal lay top, du ñom non je pose la question. ñom lay top kay. wa jaxna na. mën nga installer dara ba paré mu ñëw top la. alors c'est clair mi non exactement <laughs> Euh, kaw ki le procureur Abdou Karim Diop Abdou Karim Diop bala muy wacc ñaata wa le dugal ci kasso bi ba ñu dara changé fi dara fi wala donc il s'agit pas de ça. en fait li dina efficace dina vite fait xaar kanam exactement euh, ñu daal sans plus tarder euh, du côté de la régie elle.